mbokki Senegal, tay ci alxamis gi man ak sama natango Malal tala alias Fou Malat dem nañ ci prison wu Sébikotane ngir euh, nemmeeku ji euh, suñu frère Abdou Karim Gueye Karim kurum khakh ak Cheikh Omar Diagne bi nga xamanteni ñu ngi leen fa teyé bo ba tey léegi mu def wèr biñ fa démé nak dajé nañu ak ay sénégalais yu ay euh, citoyen ay militants yi nga xamanteni ñu ngi dundu épreuve bi nga xamanteni mom la len nguur gi te tegu ko fenn ñu ngi koy dund avec dignité mais aussi avec foi nguru Macky Sall mu ngi len fa teyé laq len fa jant bi ay borom kër ay kilifa yi nga xamanteni ni ñu ngi bayyi seeni njaboot ñu teyé len kasso ndax lan ndax dañ ci ca ben diffusion de fausses nouvelles ndax diffusion de fausses nouvelles kep ku ko wax flagrant délit nga jëm ñu atté la waye dañ len dal di jël teg len ci loxo justice bi

état de droit tax la jog boobu ba ci bi ci bi fi Macky Sall nekkulee ba ci tay yaa ngi ngir ak ak yelleefu doomu adama yi ci Sénégal dañu wara jog ñu naqarlu ko waaye ñu mobiliser wu ànd ñi nga xamanteni sos nañu ben initiative pour sen libération ñu ànd ceeg ñom pour que ñu libérer leen ndax li ni mel du Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne rek gis nañ fi Ousmane Diagne bi nga xamanteni Euh, mafia kàcc kàcc ci la bokk gis nañ fi ñoom Papito Kara bi nga xamante ni def na revue de presse ak yeneen ak ñeneen justice daal di leen téye yóbbu leen en instruction fàtte leen fa ñu war a mobiliser wu dañu war a jóg pour exiger à ce que citoyen yii ñu libéré leen ñu libéré leen lu mu gën a gaaw initiative bi jóg nag nekk ci ñépp ñoo ci war a ànd mobiliser wu à travers marche yi mais à travers leneen ak leneen pour que li mu gën a gaaw ñu libéré leen